de passage maa ngi nuyu suñu coordinateur donc le coordinateur général donc def nañu rassemblement à la place de la nation donc ñun tey li ñu ci mën a retenir mooy satisfaction parce que population moom moo répondre donc ñun question bi ñu doon euh, poser population bi dañu ñëw indi ko donc muy non à la candidature de Macky Sall par rapport à sa troisième candidature bi nga xamante ni moom la bëgg euh, tey jii jox euh, forcer Sénégalais yi donc loolu moo tax tey rassemblement xëy na yeneen point mais le premier point bi boobu la woon tey te population sénégalaise bi ñëpp ñëw nañ tey ku gis foule bi tey yow mi nekk ci sa kër sax yaay gën a gis que ñun ñi xar nekkoon foofu ci ci bi gis nga ni tey man quand je suis sur scène j'ai posé la question au public ma ne leen est-ce que d'accord ngeen ci li nga yi ànd ngeen ak candidature troisième euh, candidature président Macky Sall et ils ont répondu non ma leen yëkkati leen drapeau yi là on a vu que ñëpp a yëkkati seen drapeau ça veut dire que loolu dafa am jàngat boo xamante ni man je dirais que war na ko ci def parce que tey yow bu fekkee da bëgg jël réew wala bëgg danga bëgg nekk ci réew te yow xam nga ne sa constitution wax na la ko ne article 27 nee na la mënoo def nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs yow si boppam la mu et je vous une chose parce que fay for naa ko ci euh, ci waxu bëy ni ñu koy waxee xaw ma weewu bëy je ne sais pas weewu bëy le mu M23 est sorti de lui de sa bouche au moment où bi ñu doon xeex li nga xamante ni moom mooy euh, candidature président Abdoulaye wadd donc ba mu ŋàddoon ba mu ŋàbboon moom mer gàddoom taxawoon di xeex tey kooku daan xeex ngir troisième candidature moo ñëw tey jii bëgguñu ba euh, beneen troisième candidature donc loolu moom moo tax tey ñu m taxaw mobiliser boole ñëpp ñi nga xamante ne d'accord F24 plutôt je m'excuse taxaw ci loolu euh, ci li nga xamante ne mooy xeex koo képp ku nga xamante ne da xeex suñu démocratie ak li nga xamante ne moom la constitution bi wax par rapport à, à sa candidature donc tey ñu woo population def rassemblement boo xamante ni ñëpp gis nañ que c'était une réussite totale c'était une réussite totale tey je dirais que c'est seulement sur Dakar qu'on l'a fait et on compte le faire on compte décentraliser tous nos activités donc on peut dire que on a eu une satisfaction parce que la population a répondu et a dit non.